وهاديا وناصرا ومطرفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبلك المسالك القلاسي وتكفني عن جملة المعاصي وبلك عن رب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وسهبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا جماعة يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخبين سمع عليه سليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة وداة وأدعوني برب كل مسلمين ونجني من سر كل مجرمين وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأخيار waaw sama gaañ la léegi dina sa dëkk sama gaañ ak jëwriñ sa jëba kare sa dëkk waaw sëñ sëñ sëñ sëñ gaañ sa dëkk si bi nga nii sëñ maa ngi sopp Italie Paris su sëñ Alaaji Masik Seck États-Unis déglu leen déglu nee rekk nekk seen kanam may leen nee na bu leen taxaw bu leen gestu nee na nee na sëñ Tuubaa rekk nekk seen kanam nee na bu leen taxaw bu leen gestu jërëjëf jëf nee na ndox nun waa Matlaboul Fawzayni ban amee pexe mi ak yitt yi nee na noonu dong la nee na lu mën suñu jëm kattan rek nee na mën nañ ko def duñu taxaw pour jeex wa mamaati fi sunan wal fardi wal mandubi sirran wa alan waj'al mamaati raahatan li man nasabu wa min jawan wa min garamin wa wasabu وعمل اجعل كل مقبولا عدا كون مقتدا مقبولا ومزكا اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعل دار بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل مبكي julli ji mbokki taalibe mbokki داير مطلب الفوزي بس بس تيجي بس مبكتل مبكتل وخمن لي أمنا فم تملي واي أمو فم يم بس بتاي في تدارو منان تكسرين توبا دي خمن جيم مومن سنج منتخم باكي دينك داير مطلب الفوزي تاي أكسنا في تتاكو سان بمويا توتي نيو warfee waxtaan ak mbokkam yi nga xam ne yii ñooy mbokki taalibe yi nga xam ne dañuy yëngu ci xam-xam te xam-xam ñor ko lool mu yendu leen fi war leen fi berndeel wala waxtaan ak ñoom waaye la mu jëkkee ba mu ñëwee mooy dafa indi otoom ba ci kanam liggéey bu nga xam ne bi moo ko sakkul boppam dénk ko kan daayira Matlabul Fawzeyni ban ba tabaxoon hôpital ba ban ba tabaxoon kër Sëñ Tuubaa nekk ci Daaru Marnaan tey mu ñëw jox ñu ñetteelu liggéey te di ñetteelu sëtub xaadimu rasul bu yare xilaaf ak xaadimu rasul muy loo xam ne lii lu yéeme la mu ñëwal boppam nag suñu xel yëpp dellu ca Serigne Saliou Mbacké suñu xel yëpp dellu ca Serigne Saliou Mbacké suñu xel yëpp dellu ci Serigne Saliou Mbacké nam daan dugg ca otam ba di ñëw di jox te tànkam yi ca hôpital ba dinu sant dinu gërëm dinu naan yoon waa ngoog tey tey sëñ Mountakha Mbacké tey nekk na sëñ Saliou mu sotti ci takkusaan tey ñëwu fa boppam xool liggéey bi ni nii la ne dem leen dem leen ca kanam te bu leen gestu te bu leen dara du leen téye sant nu ko sant nu ca gërëm nu ca kon loolu maa ngi koy bokk ak képp ku nga xam ne kii gëm nga daayira Matlabul Fawzayni waaye maa ngi koy bokk ak képp ku nga xam ne kii taalibe xadim xadimal xadim nga waaye maa ngi koy bokk ak képp ku nga xam ab jullit nga rek boo xam ne bii gëm nga yàlla gëm nga Muhammad alayhi salaatu salaam mu de day tey war na xam ni lu mu am te amul ndigalal Serigne Touba loolee des na. ndigal sëñ Tuubaa bi nag tey ma xamal mbokki taalibe yëpp ne ku ko doon werante werante wa jeex na ku ko doon gam-gamle gam-gamle ba jeex na ko doon wax nag mën la faw sey ni kenn déggatu leen tey dégg ngeen leen fu mu leen dégg ca foo ngi leen daan dégg mooy du ñu yëngu mukk te ndigal ñëwul waaye bu ndigal ñëwee rek bu ñu yëngoo ñëpp xam ne yëngu nañu ndax ci xàqu ci rek la ñuy dund ci xàqu la ñuy liggéey ci xadimal xadimal xadim rek la ñuy liggéey kon mbokk yi loolu moo fi xew tey fii ci kër sëñ Touba Daaru Manaan ma bokk ko mbokkum daayira matal bu foofu suñ yëpp jëwriñ yëpp ngi teew kenn ku ci ne mënuma lim sa tur ndax kon du mat ndax waxtu bi mayu ko waaye maa ngi leen di xamal ne sant naa leen sant goo xam ne gi am na fu mu tàmbalee am fu mu yem ndax man mënuma dara yéen ñii yéen a man tey jii bu sëñ Muntaxa toogee ci otom bi wax wax ju rafet ji mu wax sànni ko tëfli ko ci suñu yaram yi ñun ñëpp nañ xam ne li yéen a kon yéen ñii yéen a ngi ci sama kanam yéen a ngi ci sama gannaaw fu nu ànd nañ fa jëm ba keroog ñu yëkkati caabi yi jébal ko sëñ Muntaxa continuer ci beneen liggéey bi la ca gën a neex nag mooy na ñëpp xam ni lii ndekete sëñ Tuubaa kenn du moom ndax lii nuy naal di ko naal naan fu nu jëm moom mu dàmbar ca beneen boo xam ne ñu ngi koy tuddee waañ di ko tudde ci nasaraan cuisine moderne ñu wax mu dàmbalaat ci ab antenne médical kon xam na ni moom xam na ni lii moom sotti na ba noppi nee na coleet ba noppi kon sëñ Tuubaa kenn du moom nan ci jàpp te xam ni képp bu liggéey sëñ Tuubaa da nga fayu te boo fayoo da nga xam ni liggéey sëñ Tuubaa rek moo am malal li may jeexal nag mooy képp ku nga xam ni kii dégg nga woote bi li ñuy wax carte barkeel yi mi ngi fi waaye li ñuy wax numéro eh, tem euh, ki Orange moone bi gën a gaaw muy dièse 144 dièse 62 10 18 jees nga def appel dugg ca biir loo fa joxe dana agsi ci liggéey bi àddina la lay la lay fekk yal nañ ci yàlla yóbbu ñun ñëpp jërëjëf jëf sama compte dafa dafa sedd mënuma àggale allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziar ci jiite bi ziar bi sunu sang bi jóge fii léegi ci toll ci fukki minute mooy sëñ Mountakha Mbacké ñu am yàgg fi lool ci wér.

woote woon ko ñu tàmm liggéey bi ñu ko tàmbalee sëñ bi ñëw na seet si liggéey bi wax ci lim ci wax ñaan ci lim ci ñaan kon bokk jullit yi noo ngi soññu ñëpp rawatina fa ñuy yëngoo ci Europe muy Italie gannaaw bu ñu soññee Italie ba mu daj képp ñu ngi soññu France Belgique Allemagne euh, Suisse Autriche ba ca euh, Grèce ba ca euh, Turquie ba ca Espagne ba ca Portugal ba ci wax naa ko Portugal jàll léegi ci ci ci ci benn sud bi muy Amérique du Nord Amérique du Sud. Afrique ñu ngi soññu ñëpp Sénégal jawriñ jaa ngi sama gannaaw muy sëñ Goro Ndiaye ak sëñ Maram Soog muy jawriñ yi nga mooy jawriñ Touba Toscana ci mat la foofu ni kon ñu ngi soññu ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu kàddu fekk seen jàmm ak xéwal sa dafa ñu jàmm ak xéwal xéwal gu nag gàñ ci bàkki Cheikh Mountakha mi fi jóge léegi ci tool ci fukki minute nu bokk ci milliardaires yi liggéey sëñ Touba yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla fa ne ñoo teew tey fii ci fan la gudd ak wér ak léegi xaa xëy gaañ ko liggéey sama xol bu ko liggéeyal jërë jëf ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp toaka Ibrahima Kare Baye Fallou mat la boo fas ni moo doon jo addoo fii ci Touba Darou Minane Sénégal ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë jëf ci tur